amee goitre wala enzyme boo seetee seex mu tàggale la ak moom nga ame amee yit wala ndoxum siti nga neew kàttan ba mënoo sa soxna dara boo seetee seex mu jox la garab goo xam ni yaay sëy ba doyal rek bàyyi wala nga amee awra bu gàtt wala awra bu tuuti boo seetee seex mu yokkal la ko ba mu doy na nga bëgg ku ñuy sànni kort wala ku seytaane jàpp wala ku rab jàpp boo seetee seex mu dindi la ko ndax yàlla da koo may si wàllum ñaan seex nag la mu làmboo lépp làmmiñ mënu koo tudd képp ku si bëgg am la leer mën ngaa jokkoo ak moom si numéro téléphone yii bi muy 78 397 65 93 78 397 65. jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di amaan mbégte jàkkaarloo waat ak yéen di nuyu suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada di ñaan réew mi Sénégal yàlla suñu borom doole jàmm di ñaanal ñi nga xamante ni yàlla suñu borom da leen di jël yàlla na leen yàlla yërëm waaye di ñaanal ñi nga xamante dañu tëdd ci loolu hôpital yàlla na leen yàlla yëkkati dem ci prison yi seet ñi nga xamante ni dañu tëdd yal na leen yàlla may indépendance ba ñu delluwaat seen njaboot delluwaat seen famille. di ñaan yàlla na sunu borom defal ñu jàmm ak salaam ba tabaski bi ñu dugg ci jàmm génn ci alhamdulilah rabil alamin di ñaanaat réew mi jàmm. tey nag maa ngi fii rëbës seeti sunu benn papa waaye nag euh, bala maa wax mënumaa ñëw rëbës ba dem du ma nuyu sama xarit Baye Sall di ko naan respect à toi parce que tey yombal nañu liggéey bi ci fii ñu nekk maa ngi ni rëbës ci koo xamante nekk sunu benn papa boo xamante ni yàlla ci dogalam dogaloon na euh, mu nekkoon prisonnier euh, nekkoon biir prison doon am lu mu fa doon dund pendant des années yaakaar naa boo xaymaa temps yi mu def ci prison bi moom ak sunu at presque trente ans ak lu ko ëpp. Euh, ci kaw loolu nag yàlla dogal mu choisir ni moom fii ñu ko fekk nii fii lay dëkk fii ñu ko fekk nii fii mooy almadem fii ñu ko fekk nii fii mooy àjjanaam waaye nit nag kenn ko xeebal dëkkuwaayam mais nag. Euh, mën ngaa ñëw it dolli ko sa xalaat ci dëkkuwaayam am sunu benn frère mu di Ngaaka Blindé ñu koy nuyu au passage ah yàlla dogal moom tamit amoon na jaar-jaar ci prison bi mu génnee yàlla boole ko ak jëmm ji nii ci waxtaan mu ne ko pour ku pourquoi nga dëkk fii paa bi ni ko fii laa soisir pour dëkk fii. Ngaaka ne ko ah ñun tamit wax dëgg yàlla dinañ def lépp luñ mën ba sa kër gi dàq sunu kër ba sa kër gi dàq ñi nga xamante ni ñooy tëdd ci appartement yi. fas yéene Cheikh ak moom waxtaan papa dañ lay bàyyi nga nuyoo ak ñu lay suivre. asalaamaaleykum maa ngi leen sant. baal ma baal ci micro bi nga téye ko baal ma yëkkati micro waaw maa ngi leen maa ngi leen sant di leen gërëm di ñëw bi ci yëg bi ngeen ma yég ba defal ma lii. jërëjëf kattan suñu borom. jërëjëf li ngeen def lu rafet la. yàlla moom diine nitu diine moom lii rek la bëgg. waaw yàlla lii rek la bëgg. ñu dimbalante ci suñu biir. Mm-hmm. waaw te yéen a ngi koy def te lii mu wane na ne yéen li ngeen di def yàlla moo leen tax a jóg. Mm-hmm. waaw yàlla li excellent na nag ci man maa ngi leen gërëm di leen sant. am na solo euh, papa mën nga ñu ñëwaatal sa parcours. Euh, ci biir prison bi. parcours bi daal bi ma fi ñëwee bi fii dama fi ñëw indaale fi ay métiers bi ma ñëwee fii bon fekk prison bi ñàkk ay ouvrier youtube bi lu bari daan fi paan te yàlla defoon ci man euh, ma xam lu bari ci liggéey yu mel noonu parce que jaar naa fu bari ci mécanique jaar ci électricité daal ci plomberie bon bi ñu ko xamee ci man nag bi ma si duggee mois trois mois laa am ci 33 ñuy wër ku mën a defar ay lal yooyu ku mën a def euh, électricité ma ne la yooyu yëpp mën naa ko occuper mën naa ko ah mu ne waaw ñu jël ma jox ma liggéey ma commencé di liggéey waaw fa fanweeri at yi ma fi def yëpp mosuma toog benn temps bu ma liggéeyul su ma feebaree maa ngi liggéey su ma wéeree maa ngi liggéey di sant suñu borom waaw waaye loolu yëpp dogal suñu borom la ma attan ko ba mën ko attan def ko yàlla jàppale ma ci tamit waaw ma fi jaamu sama yàlla yàlla jaamu suñu borom ba mu yàgg ma yàgg dem ba xam ne man mii fa ma nekkoon ci biti moo doon prison fii moo fii du prison waaw yaataloon nañ ma fii amoon naa fi liberté waaw dama daan dem di jëndi matériel di liggéey dañ demoon ba am ci man confiance sociale ba léegi sax ñu ngi am ci man confiance waaw bi ma génnee nag ba léegi maa ngi fi 30 ans aw ma fan fu ma jëm parce que ci problème mu famille laa laa jaaroon. d'accord waaw moo tax ma ma ne nag du ma dem fenn di dugg ci benn lu boo xam ne daf may delloosi. d'ailleurs sax man demoon naa ba ne bugg bëggatuma génn kaso. ma julli bés ñaan ci guddi àjjuma ne yàlla daal bu fekkee dama nar a génn fii di dellu defaat li ma defoon yàlla bàyyi ma fii rek ma ba sama dee jot ma dee. waaye guddi googu yàlla won ma misaal ne ma ubbil ma fii buntu ci miir bi ci guddi gi ma gént ñëw foofu ci cuisine bi rek ne ma lii kan kan moo fi def bunt bi lii lii di lii di ci guddi gi xanaa donc ma génn bi ma génnee rek yemaat ci beneen miir encore bu waraat kaso bi. ma ne waaw fii fan la bunt bi nag di ko wër ba dellu si fi ma jóge woon ma xam ne daal fii la ma yàlla yemloo. yàlla may na ma liberté waaye fii la ne ma ma toog fi. mooy mis ci misaal. d'accord waaw man it ma toog topp ndigal boobu nag. waaw fi mu nekk ñam nuñ fi ñëw di ma wax fii ma ne leen daal fii yàlla rek moo ma fi mën a jële d'accord kon waaw ma defoon ba wan ma ba ne da fii laay yem maa ci lay toog. d' accord kon bi ngay ñëw ci prison bi tamit da nga woon métier. waaw waaw damay indaale ay métier ci ba def naa de la fosse doon naa def ay cours du soir Ablaye Wade bi mu fi ñëwee sax fii daf ma doon fayal ay cours du soir may def euh, cours correspondance éducateur. Mhm. waaw accord naka nga doon dundee ak yenn détenu yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci biir prison bi. ñoo détenu yi man na amoon ak ñoom benn benn kii. waaw yii même affaire yi fi daan am yëpp du ma ci bokk man daal li may yàlla yebloo laay yem. ci liggéey bi ma mën ma koy liggéey di ci di leen satisfaire di satisfaire sama bopp lekk kasu bi sax daaw daaw ma ko lekk daa nañ ma ko wax mais daaw mu ko lekk waaye nag am na ci koo xam ne kii saa yi amee euh, ravitaillement viande léeg-léeg mu jël ma may ma ci viande bi mais ne ma na nga toog ma ma fas nag di woor nag léegi comme noonu la demee damay xëy di liggéey ba ngoon ba ngoonee ma dem marché jënd sama kii ñëw dugg sama place defar sama li may defar ma ma dogu waaw loolu rek laa fi nekk woon. d' accord li ma gënee fa nekk jàmm laa fi amoon. d' ndax métier moomu yaa ngi doon partagé ak xale yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci biir prison bi. waaw am na ñu ma ko doon partagé ba ñooñu tamit ñoom ñu ne bés boo génnee fii daal Père Assane ñun dañu bëgg boo génnee nga am sa entreprise bu fag ñu ñëw ñu kii ñu ñu ñu liggéey ak yow. Hmm. ñun loolu la ñu bëgg li ñuy nekk nii neexul waaw ñuy nekk neexuñu mais xamuñu lu ñuy def ñun ah, ci ci banlieue yi la ñu dëkk am dinañ jàng métier di duñ fa yàgg mais booy jàng métier te amoo xaalis say say parents amuñu xaalis il faut nga dugg ci yenn affaires yi. Hmm. man la waa loolu moom dëgg na xam naa ci dara. Hmm. waaw booy booy yëpp ay pression de famille moo moo leen fi dugal. ndeysaan waaw ñu ci bari pression de famille moo leen dugal ci musiba yi ñu nekk yëpp. waaye bu fekkoon ne bi ma génnee mën na leen bu ma génne daal bu mu amee entreprise yéen ñëpp dinaa leen jël te li ñu may liggéeyal yëpp yéen leen yéen lay doon. bi ma génn sa bari na ñëw fii di ma li ba tey amagoo kii place ma ko noonu ba tey maa ngi fii waaw. d' accord ah, d' accord ci biir nekkin boobu noonu. Hmm. Ah, xale yi nga xamante ni ñoo la fekk si. Hmm. naka nga leen doon tàggatee dalal seen xel parce que ku ne xam na ni booy doog ñëw ci prison day am benn pression boo xam ne moom ngay àndal yow mi nga xam ne yaa leen fa jiitu. comme ni ma la ko waxee rek parce que dama leen daan jàppale dimbali waaw daanaa def bu bu ma ci amee dara ma jëndal leen pon ma leen lu ñu lekk. waaw loolu laa daan def dund lu maam daal ma bokk ko ñoom. Mhm. waaw bokk ñoom. Mhm. waaw lu maam rek ma bokk ko ñoom. Mhm. waaw ba daal ñu dem ba nga xam ne léegi ñoom amatuñu benn problème. waaw naan am na ci ñu bari ñoo naan dootuñu naan dootuñu tux dootuñu dañuy bàyyi yëpp. ndeysaan waaw dinañ ko bàyyi. waaw parce que ñun lii loolu moo ñu dugal ci affaire yi ñuy ni mu monsieur yi ñuy nekkee yëpp loolu moo ñu ci dugal. waaw loolu moo ñu ci dugal waaye bu dul woon loolu. waaw duñu duñ ñëw fii. waaw dëkk bi nag dafa métti dafa métti neew ñu amul xa am na amul xaalis waaye nag liggéey moo jafe. Mhm. waaw defal leen liggéey. Mhm. mais ñu leen bu ma amoon kii ba ubbi benn entreprise man nañ fa ñëw di liggéey di liggéey ak man. Mhm. d'accord ci xale yooyu noonu mën naa ci citer kenn koo xam ne jaaroon na fi ci dogalu sunu borom mu di Ngaaka Blindé. Ngaaka Blindé. Uh-huh. ban relation nga amoon ak moom ci biir. bari nañ am na Malick am na. Malick amoon na ci ak euh, non bari nañ am na ci bari dama fàtte seen tur waaw. Ah. ñu mhm. bari dama fàtte seen mais nag daan ñëw fii. d'accord waaw non kii booy booy yi waaw yi ah, daan nañ fi ñëw. Mhm. daan ñëw fii di ma seet. Mhm. waaw di ma di nemm ku ndax am naa fu ma nekk. pour ñu mën a ñëw bokk ak man di liggéey. waaw ban relation nga am ak Ngaaka Blindé. Kanti Ngaaka Blindé. Ngaaka. ngaa ko kay moom fi lañu nekkoon rek mais ba temps yooyu mi ngi ma doon gi daan nañu waxtaan nii rek mais ab approfondi wuñ suñu waxtaan. Mhm. waaw ñu ko comme ni mu ni mu demee nii demewul woon noonu. Mhm. mais bu mu génnee xam naa mu ngi amoon yërmande ci man. Mhm. ba bi mu génnee wane na ko. waaw. d'accord euh, yaa ngi doon wax sànq nii problème bi problème mu famille la. Euh, ndax mën nga ñëwaatal ci problème bi nan la demee. problème bi daal fa affaire affaire héritage la rek héritage kër la rek kër. kër gi man dem naa ba xam nga demoon naa ba maire sa kii moom kër gi jëloon kayitu kër gi ak euh, ñàkk jubóodi gi moo ñàkk jubóodi gi ak famille bi ah ndax kër gi waaw di ma woon ne ñoom seen kër gi seen kër la moomuñu mais man dem naa ba na leen léegi yéen xam nga man kër gi tout sama xaalisu papa lañ ko jëndee seen xaalisu papa lañ ko jëndee kon nag waru leen ma sonal ngeen ma bàyyi sama jàmm waaye teewul rek ñu may sonal rek ba am fa xeex am di indi ay problème foofu. ah kër gi sa kër waajur la woon. samay pap sama yaay moo ko moom. Mhm. waaye ñoom seen pap sama yaay da daan fëletu seen pap ancien combattant da daan fayeeku euh, trois mois. d'accord ci la xaalis boobu la jëndee kër gi bi mu jógee Gueule mhm. waaw léegi nag ñoom ñu may kii ci kër gi quoi di ma sonal ci biir kër gi yàq nañ sama njàng yàq nañ fu nekk lu ne def nañ ko ndax xuloo xeex xuloo jàppal bàyyi. xam nga affaire sénégalais yi rek. si mhm. ay rit affaire kër yooyu rek. Mhm. man leen man sama këru bopp moo gën a lii. Mhm. waaw. sama këru bopp liggéey ñax liggéey kër moo ma gënal lii ma lii ma nekk nii. lii baax. d' accord après ci la problème bi am. ñu teg bi am ba ñu jàpp ma indi ma fii. ci ci faat loolu la. loolu la problème bi demee. d' accord bi problème bi amee sa famille nan lañ la taxawoo. non man taxaw ma amoo ñoom kenn bi ma ñëwee fii ba ba ni ma fi giddaan yëpp kenn musu fi ñëw seet si ma. Mhm. kenn musu mhm. xanaa ñoom ñu am ku ñëw fii bokk si ñoom ñu ñëw ne laajte ma ba gis ma ne ma diw nangam sama doom nangam sama jabar na euh, jarbaat nangam mi ngi fi. dañ ko jàpp ci fii ma ne ko kaw du problème naa fexe ba wutal ko néeg bu baax. ndeysaan waaw ma wutal ko néeg bu baax fàtt naa yi affaire yi ñu ma ñëw nañ fii jooy def mais boobu léegi gisutuma boobu ba léegi bu ñu amee daal problème bu ku fi ñëw ci ñoom ñu ñëw ci man mais bu à part ça mosuñu jóg uniquement ñëw di ma seet mosuñu ko def euh, ndax amoo papam rek papa euh, yaay rek laa bokk ak ñoom loolu moo tax te ñoom ñett ñett ñoo bokk yaay mm-hmm. ñoo bokk papa ñoo bokk yaay mm-hmm. ndax amoon nga ay frère yoo xamante ni yéen a bokkoon même deret frère frère non frère yi ma bokkaloon nag moom euh, mbaaw lañ nekkoon. Mhm. mbaaw lañ nekkoon. sama papa moo doonoon kër gi magam moo moomoon kër gi. Mhm. ci mbaaw baal ma yëkkati micro bi tuuti rek. moo moomoon mbaa kër gi. Mhm. waaw ma soogi taal mooy papam mooy euh, magam. bi mu gaañoo nag moom la sama papa jël kër gi. ñu ko jëree ñoom dund foofu di dund foofu. mais man bëgguma woon dem foofu. bëgguma foon dem mhm. waaw daanaa fa dem nii rek mais kër gi intéressé wu ma woon mhm. waaw man li ma intéressé mooy liggéey ñàkk am lu ma lu ma suturloo ci àndul comme ñëpp niñ koy def mhm. noonu laa ko bëgg parce que maa ngi jóge ci ay problème mu kër bëgg a duggati ci beneen kër ci affaire héritage yooyu ma ne nag loolu duma ko topp d'accord waaw euh, euh, ndax bi nga génnee demoon nga xoolaat sa famille non mosu mënu ma leen xool xoolu ma leen de ñoom ñoo fi ñëw après bi ma génnee ñëw fii am na ñoo xam ne ñëw nañ fi fan yële temps yële waaw ba ñu déggee bi ñu gisee affaire yi ñu may passé ci télé bi la commencé di ñëw fii daal ma da ngay ñëw ma ne ko ñëw kay moo mënut a nekk moom. Mhm. xanaa juboo rek waaye ñëw moo mënut a nekk. Mhm. mënatuma dem fet te sax am na ñu fi ñëw sama doom doomu mag yi nekk point e. ñëwoon nañ fi ba am luñ ma indil sax ñëwoon nañ fi ba indil ma dara. Mhm. waaye bëgg nañu ma ñëw mais ma ne man du ma mënu ñëw foofu. waaw dama leen ne waaw ñu tabaski mais mën nga fa ñëw au moins que ma ne ko non mu koy fi mu ne nii nañ déggante jàmm rek. d'accord waaw nañ euh, déggante durant 30 ans yi nga def après bi nga génnee. Hmm. Euh, lan moo tax nga choisir dundaat fii nii. comme ni ma la ko waxee rek yàlla moo moo ne yemal fii rek may xaar. Hmm. waaw yàlla moo ko moo ne yemal fii. parce que boo seetee ni ma ko gisee ci gént rek noonu laa xam ne fii la ma yemal. Hmm. ba bunt gi ubbee fii ma génn gisaat beneen miir encore. ma wër ñëwaat topp ba fi jaaraat fi egsiwaat ñëwaat fi ma taxawoon. ma ne kon lii mooy yàlla mooy fii la ma yemloo. waaw nag bëgg naa fi jógee nag waaye bëgguma fi jógee jógeen boo xam ne bi da ngay dem dugaat ci la dans la société di ñëwaat fi te ku xam nga boo xasee de euh, prison jeex na foo dëkk rek lu fa am day de yow la ñuy jëkk a xool. yow la ñuy jëkk a fan bari na fii ñoo xam ne ñii ñi fi ñëwoon waa Dakar Actu eh, da ngay wut kër da ngay wut man leen am na fii kër bu fi nekk damay xaar bés bu jotee bés bu mu d'accord ak ñoom ñoom ma jël foofu waaye après gisaatuma leen. Mhm. d'accord mhm. ji euh, bi ginnaaw loolu weesoo ci programme sunu borom. Hmm. Euh, lan ngay regretter loo xamante ne nii yaa ngi toog di ko regretter naan bu démb doon tey du ko defaat. non boo gisee xeex bi ma xeex ba am ci ku bu bakkanam rot mhm. kooku laa la mooy la moom laay regretté waaye nag nekk fii moom regretté wu moom mhm. waaw parce que bañ ay rek bañ indi problème ba delluwaat fii rek laay bañ mhm. loolu laa bëggul trente ans yi nga def prison euh, ban jàngat nga ñoom joxoon nañ ma fii sax logement bi ma génnee joxoon nañ ma fi logement fii ci kaw waaw joxoon nañ ma fi logement ma nga dëkk foofu mais ba ma dëkkee foofu comme damay soog a génn fii nag moom Karim ak Abdoulaye Wade ak ñoom ñëpp Karim daf ma daan dimbali Abdoulaye Wade dama jàppale ñoom ñëpp waaw Karim moom daf ma defoon comme papam waaw Abdoulaye moo ko gisoon fi ne nii moom moo ko mënoon jot amul problème. Mhm. waaw ah, dama hmm? tey lan ngay regretter ci 30 yi euh, ci 30 ans nga xamante ni yaa def wax naa loolu ba pare. Hmm. tey euh, boo doon boo doon def analyse. 30 yi nga def prison. ban jàngat nga am ci àdduna. ci àdduna ah comme ni ma continuer di continuer di suñu borom rek. Mhm. te xam ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu liñ ko def ci àdduna benn doomu aadama bu attan na ko ci àdduna sëriñ tuubaal liñ ko def ci àdduna kenn kenn kenn attan ko ci àdduna waaw. sonal lañ ko sonal boo xam ne bii bu doon kuy weddi dina ci jóge waaye dama koy sant yàlla. di ko sante ñoom ñi nga xam ne mooy ñooy ngën gi mbindeef waaw waaw. loolu la d' tey gis nañ génération bi ni muy demee. Hmm. xale yi nga xamante ni dañoo jël yoonu sànku ak yow fi nga jaar tey yan conseil nga leen di jox ci àdduna. ok li ma leen di conseil ñoom ñoo war a fexe état bi fexe xale yi xale yi di liggéey. ndeysaan parce que dépense dafa métti dund bi dafa métti ndekki añ reer yombul waaw gis nga banlieue yi bu njëkk. ñi daan bandi yu jëkk ba ay bandi la ñooy ils sont optés pour ça nekk ay bandi di dugg ci baar yi dugg ci caga yi di di naan di mandi ñoom ñoom seen loolu lañ koy wax mais génération bi pression le PAM yi moo leen fi indi. pression bi moo leen dugal ci tux beeg naan beeg agression yeeg yooyu. Mhm. mais ils sont pas méchants boo ñëwee fi de bu ñu nekkee fi dañu mel ne ganaar dootuñu am benn soxorte. Mhm. dañu koo ci woo day bëgg liggéey koo ci woo ne kaay ñu liggéey mu dem ànd ak yow liggéey ak du am benn problème. waaw ñoolu nag bu ñu nekkoon ci biti di am xaalis di liggéey am d'ailleurs sax ñoom bu fekkoon ne bu euh, état bi mënoon na fexe quartier bu nekk quartier bu nekk jeunes yi nekk ci quartier bi yëpp ñoom ñoo duñ fa bouger ñoom ñooy nettoyer quartier bi suñu xëyee nettoyer quartier bi ñu toll leen ay matériel de d'hygiène pour ñuy repa nettoyer quartier bi suñu paree ñibbi seen kër ci même quartier bi te boobu sax day yokk seen jom dootuñ dañ ñu bàyyi naan bàyyi sàngara parce yow ci quartier bi nga dëkk yéen a ngi nekk ci ak ak seen sooy morom ci quartier bi te war nga faj gàcc bu ko defee yow tamit kenn du gis kii di defar seen kër di joxe añ joxe reer ci biir kër gi te doo ko joxe waaw ci quartier bi ku nekk day day dañ koy dañ koy concurrence concurrence lañ koy def kon xale yi dinañ liggéey kon dootul dootul dootul am chômage chômage ci dëkk bi mm-hmm. dootul am mm-hmm. waaw mm-hmm. d'accord sànq yaa ngi koy wax euh, ci métier yi nga xamante ni jot nga ko def. Hmm. tey lan moo lay metti ci li nga jot a jàng lépp ci métier. Hmm. former ay xale. ba tey nga toll fii projet yooyu noonu ba tey mën ko réaliser. xaalis xaalis la rek kooku xaalis la rek bu ma woon matériel am na ñu bari ñëw dugg dugg fii dama am na ñu ma diggoon sax mais bu ñu génnee rek bu ñu génnee rek dama dinaa la jël telle place dinaa dinaa la utal entreprise naa la ok mais bu ñu génnee rek fàtte nañ kilifa yu bari fekk nañ ñu fi di ma promettre yooyu mais ñu fi ñëw ki ñëwuñu fi mais su fekkoon ne bi ma génnee fii liñ ma ameel ci pécule pécule boobu buñ ma ko fayoon kon dinaa am départ mais fayu ñu ma pécule bi dañ ma jox logement rek logement bi nag ma dem ba yàgg ma ne ne logement bi mënu ma arrangé waaw mhm. mënu ma ngeen may jox li nga xam ne ni moom laa am fii ma jëm ci réaliser dara. Mhm. liggéey waaw. Mhm. comme nga ñi fi nekk ñi comme guinéen ni ñu fi nekkee nii xam nga guinéen yi ñoom xeeb ñu dara. Mhm. ñoom sont réalistes sont économistes dañuy fexe ba di liggéey waaw les sénégalais yi ñoom préféré wuñu loolu. ñoom xeebuñu dara voilà. d'accord d'accord ndax kaso day yàq nit. soo kaso mën mën nga ci fekkee da kii daal. Euh, fekkee sa yow sa ambition li sa li nga programmé boo toqee toppee tux meeg naan bi rek moo lay moo lay indil problème ñoom tox bi rek moo leen indil problème tox bi ak naan bi moo leen indil problème tant que ñi xale yi ñu ngi di tux di drogué wu rek du ñu mos a réussir seen àdduna duñ ko mos a def te kooku yëpp pour dindi seen stress yi la rek waaw doone bëgg a faj seen naqar yi rek moo tax ñu di ko def waaw d'accord Euh, euh, tey ki nga xam ne dafa génn prisonnier euh, ban taxawaay la lañ ko war a accompagner ba bu génnee du delluwaat ca lam nekkoon. ah kooku day mooy li ma la wax rek kooku boo ko wutalee liggéey bu amee fu muy liggéey dootu ko defat dana toog parce que am na génération yu bari yoo xam ne yi ñu ngi fi woon di di def loolu mais bu ñu génnee rek dinañu fexe ba dinañu fexe ba réussir. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. parce que dañuy liy tuut li ñuy am dañuy fexe ba réussir. dem ci pàkk bi jaay feeraay. ñii di wuti ferraille ñii di wuti euh, dem ci chantier yi di liggéey. d'accord waaw papa ku xool sa dëkkuwaay xam ni. Hmm. Euh, xaw na doy waar. doy na waar kay ci yenn condition ngay dundee fii. ah xanaa muñ rek comme li ma ko la waxee rek muñu rek lu mu miti miti da ngay muñ rek man boo dama ci war a kontaan parce que eh, ñi nga xam ne ngeen ngeen ngi mbindeef sëñ Touba lu nekk la daj lu ne lañ ko def waaye mu dëgër fi mu dëgër rek. parce que àdduna du dara yàlla moo fi am. Mhm. alxuraan yonent bi Serigne Touba yooyu fi am la rek fi am. Mhm. ñun loolu rek la ñu war a topp. Mhm. waaw yi ci des yëpp ay caaxaan la rek. ci wàllu ci wàllu sangu bi. extra naka nga koy sangu bi yàlla def def na fii su ma toogee ba ñàkk ndox foofu lay dem. ci biir ndox fii waaw. fii yëpp fa laa koy rootee ñëw bu ma ko rootee. sol ay butéel fii ñi nekkal fii ñi ma nekkal fii ci atelier bi parce que daanañ gis ay jullit la ñu bëgg na lii liggéey mais daaw ma gis ñuy julli waaye ba ma ñëwee ma ne lii il faut ñu bàyyi ko nañ topp suñu borom mu ñëwee amuñu ndox ma ne nag léegi yàlla jàppale ma ci chaque fois damay root ay butéel ndox butéel yëpp ngi fees ci biir fii mm-hmm. waaw moo ko rootee heure bu jotee rek ma dem ci ñoom jox leen ñu jàpp jàpp julli ànd julli waaw ngay duggaat ci biir prison bi di ut ndox. image yooyu noonu. Hmm. ndax des fois du ñàkk loo xam ne day ñëwaat sa xel. lu dara du ñëw sama xel dafa ne xam ne lii yero yàlla moo ko def rek yàlla moo moo def ne lii rek parce que mënoon na mënoon nañ ma bu fi dugguti comme jóge nga fi di ñu laaj xaalis bu fi duggati waaye waaye defuñu ko. Hmm. waaw. su ma ñëwee su ma bëggee dem toilette foofu laay dem toilette. Hmm. waaw su ma bëggee dem euh, sangu foofu laay sangu. Hmm. waaw suñu suñu nga fii neexul. d'accord euh, tey ci loolu ñu gis benn rappeur Ngaaka Blindé hmm. ak li nga xamante ni jot na ko jot na ko dund ak yow. Hmm. mu ni moom dafa pare pour jàppale la. waaw la fi nga xamante ni. fi ngay nekk defaral la ko makkaan bu baax. tey jii mu woo équipe bi muy liggéeyal ak menuisier yi. ni da koy def te yàlla tax ñun sax ñoo sob ba dugg ci donte bëggu ko woon. tey Ngaaka Blindé am xalaat boobu noonu. ban jàngat nga ci am. ngaaka day daf di ku baax la xol bee baax te am na xalaat bu baax ci dëkk bi. Mhm. te loolu mu def noonu gis na ne nit ñi xale yi comme ni ma ko waxee rek dañu sonn xamul nu mu leen di satel bu soñoon ñoom ñoom ñoom ñëpp a nekk kii. Mhm. waaw ñëppay am ñëppay am xaalis parce que loo gis rek xaalis moo ci jiitu. xaalis mooy tax nga mën a réaliser dara mooy tax nga mën a liggéey. parce que pour de l' il te faut de l' argent. Mm-hmm. waaw balaa ngay mën a liggéey xaalis il faut nga am xaalis ba pare. d' bi la ko Ngaaka Blindé diggee donte yaa ngi wax ni kilifa yu bari diggoon nañ la ko. Mm. Ngaaka Blindé bi mu la ko waxee ndax jàppoon nga ni bés dina ñëw Ngaaka mu def ko. ah yaakaaroon naan ah ba mu ñëwee daal ci bi mu ñëwee fii nag laa la gën a xam ne kii ñi fi dig ñëpp moom rek moo fi ñëw. moom kenn moom kenn moom moo fi ñëw. ah doon na ñëw di la seet si sonn sonn ci lii. di ma defal léeg mu am lu ma jox ne ma jàppal ci lii waaw waaye maa ngi say affaire dinaa ko lijjanti naa la jox kër naa la may kër waaw waaye en attendant balaa ngay balaa ñu yegg si foofu naa la defaral fii ba nga mën sa dëkkuwaay kii tamit doon jullit bu baax nga ma fatt fare fenêtre bi fan yi sax mu nga naan ma dama tàng may xam naa tàng boobu mooy dafa bëgg ventilateur rek. d' accord dama dafa bëgg ventilateur. d' accord ah, bi la ngaa ko waxee loolu ban yëg-yëg nga am. bi la ngaa ko waxee loolu ban ah, yëg-yëg bëgg ci moom bëgg ci yàlla di ko ñaanal ci suñu borom rek gën koy am mayal doole. Mhm. yàlla gën ko jox doole. waaw yàlla musal ko lafal ko cat tooke làmmiñ tooke bët. ak tooke waaw yàlla lafal ko loolu yëpp. Mhm. tooke baaxul cat baaxul cat moom mooy yàq lépp waaw cat moom fu mu dugg rek mu yàq. moo tax kuy wut rek da wut lu lu la musal ci jot. d'accord ndax jàpp nga ne tamit ñëpp ñu defoon ni moom wala ñu bari comme moom jot na fi jot na fi jaar. ba gis na li nga ñu dund moom mu amaat indépendance génn. ba tourné di leen xalaat. Hmm. Euh, est-ce que tamit jotul sénégalais yi di partager ci partage boobu. sénégalais yi kay ñoom dañoo partager mais xam nga nit ki ñoom fi mu nekk nii dëkk bi dafa ñàkk ña néew ña amul xaalis. waaye fu ñuy jaar ba am xaalis lañu xamul. te xaalis liggéey moo koy joxe te liggéey amul encore ñaar yooyu yëpp tu vois da ngay dem dañ lay pousse da ngay dem ñàkk baaxul ñàkk bu yàgg baaxul. waaw hmm. mi ngi mel na nga toog bëgg a lekk ndëkk doo ndékki bëgg a añ doo reer nekk ci kër kooku dafa miti kooku amul amul kenn ku ko mën a supporter. d'accord waaw il faut am loo xam ne lii ñuy def nii yëpp li xale yi li leen dugal ci yëpp loolu la. ñàkk liggéey la rek. waaye bu ñu commencé woon ci quartier bu nekk ñu def euh, def jël jeunes yi fa nekk ñuy xëy wutal leen tenue wutal leen ay oto wutal leen matériel bu ñuy nettoyé quartier bi. su ñu xëyee nekk ci quartier bi nettoyé ko bu ngoonee ñu dem seen kër bu weeru de ñu fay leen nag mm-hmm. euh, xaalis boo xam ne euh, di dinañ ci mën a yore seen fane. Mm-hmm. tu vois parce que mm-hmm. xaalis de jamono bi dafay toll foo xam ne bi comme ni kii kii waxoon rek euh, russe yi waaw xam nga force de travail waaw yéen ñi ngi nii ñun ñëpp yem hmm. parce que ñun mënuñu ku ci koo ci gis mu sol yére bu rafet hmm. wala mu sance di dem nga defe ne affaire am yëpp mat na fekk ne au fond fond dara dara matu waaw sutural yi demee dëgg waaw parce que xamuñu àq ak yelleefu doomu aadama hmm. xamuñu ko waaw xamuñu parce que bu fekkoon ne fii loolu am na de détournement yi ñuy def nii du am kenn du sa kenn du def dara waaye xam nga la force de travail qui se réalise par sa manifestation extérieure et s'affirme et se constate par le travail. Hmm. De son côté, nécessite certaines dépenses, des nerfs, des muscles, du cerveau que l'homme dépense. Plus lusurigant, plus grands sont les frais de réparation. Mmh. Donc, euh, il faut que les moyens de substance suffisent pour s'entretenir dans son état de vie tel que logement habitement habillement yooyu yëpp war dafa war a am ci nit nit ki ah mais di feeku euh, cent mille francs deux cent mille francs balaa weer bi dee nga am problème quatre cent mille salaire baaxul ah salaire baaxul salaire baaxul nit ki da nga koy liggéeyloo comme garab comme jardin mais di ko liggéeyloo comme bougie parce que bougie yi bari nañ fi bougie bu dee mu nga taal jël beneen kooku baaxul mhm. ah si sa ñiy fay ko fii salaire yëpp dañuy am problème ñoom ñoo fiy def yenn yi parce que mu attanuñu eh, charge yi ñu leen teg. Mhm. parce que du ñu leen fay lu war liñ leen war a fay. di fay ko cent mille franc deux cent mille franc courant bi bu ñëwee dina jël presque cent mille franc électricité bi bu ñëwee dina jël presque deux cent mille franc dund bi en plus il faut ngay leb ah il faut ngay ñii di leb di fii di ñii di truander fii ñii di ah, ah escroquer. Mhm. ñii di cagatu fii. Mhm. loolu moo ko indi quoi. waaw parce que duñ leen jox lu doy lu yoon. d'accord d'accord on bon mais à cette condition non absolument c'est ponté pontée illusoire pour ainsi dire. Mmh. un luxe rendu possible par une suite favorable. Mmh. quand même d'accord dañu sonn. d'accord nit ñi dañu sonn. Mmh. dañu sonn. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ah, mu ngi noonu moom laa dalaloon mu di sam papa euh, nekk euh, mag mu baax nag li ñaan mag mu baax jar naa bàyyi jar naa mag mu baax. jar naa bàyyi cim réew. Ah vraiment papa. kontaan nañ ci seet si la fii léegi nag li ñuy def mooy. Hmm. menuisier bi day ñëw. Hmm. ñu nettoyé waat fii. Ah defaraat ko. Ah. ba yàlla doxal daal. Hmm. mu nekk ci ay conditions yu baax. ñu ngi koy def nag ci. turu Ngaaka Blindé mi nga xamante ni moo am xalaat boobu noonu. donc ñu ngi lay sant. Euh, tey sa moo de la fin ci émission bi comme ça léegi ñu mën a defaraat bagage yi nettoyé waat fii. maa ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf yal na leen yàlla yëkkati. amiin li ngeen def nii yàlla nga te yàlla jox leen loo xam ne lii di ngeen mën a satisfaire seen euh, seen famille. ba doo leen am benn problème. waa vois dund bi dafa cher. ah bëgg a fay courant bëgg a fay yooyu yëpp dafa miti mm-hmm. ah logement ñiy détourné lan moo leen ko def sàcc xale yi euh, di di di di di di di di sàcc di truander di escroquer lan moo leen ko def du du bandi de du duñu ay bandi ay pression de famille ñu rek mm-hmm. waaw seen papa moo jëkk ci lool parce que liñ koy duñ liñ leen di fay du doy du doy ah jërëjëf c'est soo su doon ci temps euh, bu doon meloon na comme au temps des communistes yi xëy na ñoom ñoom ñoo xam ak ak yelleef ak doomu aadama waaw parce que ñoom ñoo xam ouvrier waaw fii ouvrier moo war a gën a mën a fayeku que fonctionnaire parce que li nekk ci ci biir bureau bi fonctionnaire yi ngay gis yore diplôme nekk ci bureau yi di bureau bi yore seen voiture bi li ñu yore yëpp kan moo ko liggéey du ouvrier silib bi ñu sol chemise bi ah eh, li nekk ci kër gi yëpp. ci bureau bi big yeeg gom yeeg. ah yooyu yëpp ouvrier moo ko def. Mhm. luxe bi nekk ci bureau yi yi kan moo ko liggéey du ouvrier ah ak cultivateur yi ñoom ñoo yore àdduna cultivateur ouvrier pêcheur ñoo ñoo yore àdduna te ñooñu may may ñu leen doole ñoom ñoo waroon am doole ci àdduna waaw bu ko defee kenn dootul jooy dara. jërëjëf waaw kenn dootul jooy dara jërëjëf jërëjëf.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 doo fay dara Serigne Cheikh konte yi ñu gën koo xam ci Cheikh borom produit yu baax yi nee naa la nga bëgg ku la seetal demal nga seeti Serigne seex Konté yi dina ñaan dina seet boole si faj ba mu wér waaw waaw lu jafee gis faj ba mu wér laa la wax de dégluma ma bu baax mbokk mi ma wax la seex feebar ya muy faj yow mi am jabet bañ ñi la du wér demal nga seeti Cheikh yow mi amee feebaru AVC ba paralysé demal nga seeti seex yow mi amee tànk yu miti demal nga seeti Cheikh mu tàggale moom yow mi amee goitre wala enzyme boo seetee seex mu tàggale la ak moom nga ame amee hémorroïde wala ndoxum siti nga néew kattan ba mënoo sa soxna dara boo seetee seex mu jox la garab goo xam ni yaay sëy ba doyal rek bàyyi wala nga amee awra bu gàtt wala awra bu tuuti boo seetee seex mu yokkal la ko ba mu doy na nga bëgg ku ñuy sànni kort wala ku seytaane jàpp wala ku rab jàpp boo seetee seex mu dindi la ko ndax yàlla da koo may si wàllum ñaan seex nag la mu làmboo lépp làmmiñ mënu koo tudd képp ku si bëgg am la leer mën ngaa jokkoo ak moom si numéro téléphone yii bi muy 78 397 65 93 78 397 65